ne ko eh, eh, tegal samay jaaj ah tegal samay jaaj dina leen def ak coono ah raggi pàcc pàcc pàcc gi gi ree ay waay <laughs> retour de parquet ma ne ko ci retour de parquet retour de parquet ma yore samay laytaay ba talu mu yo popopopo force restera la loi eh waxal ma ko sa yaay ne ko force restera la loi eh yaay ne ko force restera la loi dina leen def ak coono yée yée yée yée retour procureur yal nañ yàlla musal bu la renvoyé jeudi day julli ji di liggéey yàlla def samedi day dem weekend day nekk jay diikul dimanche wax dëgg yàlla procureur day dal du liggéey waxal ma ko sa yaay lundi onze heures lay xëy wax dëgg yàlla te day jàpp du aat neen def ak coono <laughs> ஏ ரத்து பாருங்க ஆ Thank you.